asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki senegal ñu ngi leen di nuyu euh, ñu ngi fii ci aéroport euh, international bu Malpensa xam ngeen ne tey jii la 15 la aéroport euh, international bu senegal ubbi fii nag ci Malpensa senegal yi dagg nañ ay billets ñoom ñëpp pour bëgg a voyager waaye bi ñu dikkee ba fii dañ leen amu leen vol bi du départ dem Sénégal parce que seen réew ci boppam. autorisé wul euh, avion bi wàcc fii du lu métti lu métti nag am ñoo xam ne dañoo jóge ay kilomètres yu bari tubaab yi lu ne ñu koy def waaye bu ñu waxee ñu ne seen réew ci boppam moo nanguwul avion bi wàcc ñoom ñoo autorisé wul autorisé wul pour avion bi ñëw Sénégal gis ngeen nit ñaa ngi fi des millions tànk nit ñu bari ñoo fi nekk ak xale yu ndaw dagg seeni i bee ci suba jóge fu sori ñëw fii waaye li ñu leen wax daal mooy seen réew ci boppam ñoo autorisé wul pour avion bi ñëw fa. Sénégal yi ñu ngi dund lu metti fii ci aéroport international bu Malpensa loolu nag ñoo ngi koy yëgal mboolem autorité sénégalais yi bi nga xam ne te ambassade bi mi ngi fi di ko dégg te moom doxul mètre ci mbiri sénégalais yi. kon nag fii sénégalais yi mer nañ trop parce que ñoom ñëpp ñëw nañ fi ñuy bàyyi seen i liggéey ñëw. senegal ci boppam moom lañu wax ne moo autorisé wul pour avion bi wàcc fi gis ngeen doomi Sénégal yaa ngi fii sonn bay bëgg de dee ñu ngi fii ci aéroport bi jigéen ñi ak xale yu ndaw yi yor seen i bee jaaxle gu metti la ñu nekk fii ci aéroport international bu Malpensa gis ngeen xale yu ndaw yi gis ngeen xale yu ndaw yi ci suba ba léegi lekkuñu gis ngeen ko nii eh, muy muy mu doon muy doon muy doon mbir mu metti nag mu doon mbir mu métti nag ñoo nag nee nañ seen réew la du ci ñoom waaw waaye nag xam nañ ne Air Sénégal ci boppam moom lañu bëgg mooy xeex mooy xeex waaw mooy xeex avion bi nga xam ne waaw ñun daal dafa mel ne ñun suñu réew ci boppam ñun ñu génn suñu réew daf ñoo soxlaatul ndax li ñuy dund ci bitim réew metti na trop ambassade bi mi ngi fi waxul dara senegal yaa ngi fi sonn bay bëgg a dee jërë ngeen